إليك يا خير البرية السلام خديمك الذي كفيته الملام إليك يا خير البرية السلام خديمك الذي كفيته الملام صلى عليك أبدا ما سلام في الآل والأصحاب ربنا السلام حست مقاما دونه كل مقام يا نور كل عابد صام وقام أنت الذي أخرجنا من الظلام بك لنور من هباك بالكلام بشرك الجميل يا آخر إمام بما نويت فيك سعيا ذا تمام أنت النبي والرسول والهمام بك انقياد الصالحين بالزمام لك لدى رب الورى كل مرام لك به يا سيدي أصنع احترام جادلنا باقي تعالى عن منام بك فأنت سيدي خير الأنام نويت شكره عليك كل هام وكل شهر والكتاب لي دعام نويت شكره عليك بقلام وعيرها يا ذا جوامه الكلام هديتي خذ كرما بلا انسرام يا خائدا لي من إلهك المرام tubtu li rabbi zairan bi nizam laka wa qablahu habawta bi nizam bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyoo fii ci kër Serigne tubaa gi jàkkaarloog jumaa ju mag ji di jiital ci nuyoo bi ak cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu cheikh Mouhamadul Bachir xalif général des Mourides di ziyaare itam sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ bu Mbàkke mi nga xam ne teew na ci jataay bi ànd ak sëriñ Youssou Diop jëwriñu daari Hizbut Tarqiyyah sëriñ Cheikh Abdoulatif Mbàkke ak sëriñ saali Saaliwu Mbàkke ak lu takku ci bokki taalibe yi ak ñi nga xamante ni ay jëwriñ lañu jublu gi nag mooy ndigal loo xam ne mu ngi bàyyikoo ci xalif général des mourides Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbàkke muy bisub xasida bu mag a mag a mag boo xam ne fas nañu yéene amal ko ci dëkk bu tedd bii di Touba bisub àllarba war doon benn wala ñaari fan ci weeru muharam wii ñu jublu atum junneeg ñeenti téeméer ak ñeent ñett ci gàddaay gi di dëppoog 11 ci weeru août atum 2021 ni ñu nosee liggéey bi nag ak ndigal li dinañu bàyyi kilifa yi ñu jottali ko dinañ jox sëriñ Cheikh mu sëriñ Abdou Latif mu ubbi kàddu gi bu noppee sëriñ Youssou Diop jëwriñu daara yi Hizbut Tarqiyyah dana indi leeral yi ak ndigal li ni ko Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké digle bu ñu noppee dinañ jox sëriñ Moustapha mu sëriñ Mahmadan mook sëriñ Aline Diop dinañ wax ci turu sëriñ Hamsatu Mbacké moom sëriñ bu ak mbooleem ahlu xasida bu ñu noppee jox sëriñ Abdoulahat Bousso mi nga xam ne moo fi teewal daayira Muxaddamatul Xidma ndax liggéey bi ci jumaa ji lay tàmbalee ak li ko wër mu joxe ci ay kàddu su ko defee woote bi nag dina jëm ci mbooleem bokki taalibe ak mbooleem kuy yëngu ci xasida ak kuy jàng xasida ku koy durus ak ku koy yëkkati ci lu wér fu mu fi mën a nekk ci biir rëdd réew mi na xam ni ndigal li Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké joxe tàbbi ci biir loolu kon ñu jox Serigne Cheikh mu Serigne Abdou Latif mu ubbi kàddu yi nga xamante ni moo jëm ci ndigal li bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ngi nuyoo noo ngi nuyu bokki taalibe yëpp ak fu ñu mën a nekk waaye nuy tàmbalee nuyoo bi fii ci jataay bii ñu ko tàmbalee nag suñ jëwriñ ji nu toogal monsieur xamsa mu koy siyaare di ko nuyu di ko jot nuyoo bi Cheikh Mamadou Mountakha jàlle nuyoo bi ci Serigne Youssou Diop mii jëwriñ nuyu bokki taalibe yi fi toog yëpp nag di jàllale nuyoo bi nag fu taalibe mën a nekk waaye rawaate na boo ñu dëkk ci dëkkub Touba bii nag dëkkub Serigne Touba bii mun ñu am tawfeexe dëkk ak Serigne Touba ni ma koy waxatu nekk ñu am tawfeexe dëkk ak Serigne Touba ci dëkkam bi waxtu wu nekk danoo war di yëg tawfeex jooju di ko sante di ko bégee di ko dund kon ginnaaw nga xam ne Cheikh Mahamadou Mountakha moom yëg sëñ bi ak dund sëñ bi وطونك فمشى يا كان منكو زين ينقوم يب دلم يب سرين تبارك الله تمام يقول سيدنا بلاد وخيون اللي سرين تبا وخي يونا نبي صلى الله عليه وسلم لولو طالب يب ورخ حياتي وماتي حركاتي وسكرنتي مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لولو سرين تبا وخي يونا نبي صلى الله عليه وسلم sëñ Abdoulaye waxoon ne taalibe yëpp noonu lañu war a ànd ak Serigne Touba ñu war a yéegi Serigne bi waaye loolu de Serigne Mountakha àgg na ci foo xam ne nii mu doone Serigne Touba ni la ci rawee taalibe yëpp koo xam xam ne yëngoom yëpp dalam yëpp xalaatam yëpp Serigne bi la bu wéetee ma ngay xalaat ci Serigne bi bu wéttali ko ma ngay wax ak di jëf loo xam ne dañ cay royee nu ñuy ànd ak bi. ak ni ñuy dundale sunu taalibe loolu nag tax na Seex taxa waxtu wu nekk la muy xalaat ak la muy nas lépp nu taalibe mën a dunde sëriñ bi mën a yëg sëriñ bi mën a bañ a am jenn yitte judul sëriñ bi nga xam ne suñu yëngu bépp day dellu ci sëriñ bi sëriñ Muntaxa loolu moo di doxinam loolu nag alhamdulilahi rabbil alamin wéetu ca donte fa mu àgg kenn àggu fa am na ci ay àndandoo nag yoo xam ne saa su geesoo gis leen ñuy bokk di dundak moom la muy dund ci sëriñ bi loolee nag moom itam da koy wéttali ko mu di ko bànneexuloo banneex boo xam ne day woyofal ci moom yoon wa ak doxin wa delluwaat ci bayit xoqa woowee wala xoqa waxoon ci yoon wi ya nga xam ne mënu caa ñàkk ci ku bëgg a dem muy wax ba naa waruf xatun waaye ixwaanun lawum himam himamun loolee sëñ mu taxaa da koy yëg ci àndandoom yu baax yi waxtu wu nekk ci liggéey bi moo tax it fu fi mën a toll la nas di ko xalaat dana ay jëwriñ yoo xam ne loole ñoom la koy àndal ñoom lay àndal nas ba ñoom lay àndal doxin ba doonte du tàggoo ñoom benn waxtu yitam day am diggante boo xam ne liggéey ba fa muy toll dana am jëwriñ yu ko doy ñoo xam ne ci loxo yi jëwriñ yooya la koy teg ànd ñoom liggéey booba mu mel na yëg-yëgam yooyu yooyu ci sëriñ bi nag ak dund ki sëriñ bi wato wu nekk dana dana xamaat ci xam xamu baatinam ne fii la liggéey bi toll fii la jamono toll lii rek moo mën a sore nit ñi soowee nit ñi ndax loolee bi waxoon rek yaral xafaaya بعين القلب ظاهرة كما يشاهد ما تاتا لكنات سيرين بو ماتو سيرين داي فوف كون مومي تام وقت بو ني داي غيس ميري خام ميري فين تولي مو خام في مو لي رك مو مانا سوي ادنا لي رك مو مانا ديفار مير لي رب لي رك مو مانا تا جامام تي فوف تولو ايم يوي اك غيس غيسام يوي نك تي لا غيسني فان يي دا بوغ تاخو بيسوب خسيد بو خام te bisub xasida boobu ci la ay yëpp di jàqoo ci la jafe-jafe yëpp di jeexe ci la xéewal yëpp di tàbbee ci la yiw yëpp di tàbbee ci la jàmm di amee liñ bëgg lépp ci la ñuy amee mu gis ne kon bis boobu rek ci lañ ko bëgg delloo te loolu itam noon ñi nga xam ne suñuy xalaat dafa gàtt sax xam nañ ne sëriñ bi liggéey bépp ci xasida yi la ko liggéey kon luñ bëgg noonu murid yi képp luñ bëgg mën noon ko amee ci xasida yi waxuma moom mii sëriñ Tuubaa nag kon lam gis ci xasida ba di ca daw jëm ak di ca soññee xam na ne lanu bëgg lépp ci xasida yi lan koy mën a amee lan ragal lépp ci xasida lañ ci mën a muccee loolu moo tax mu xalaat bi bisub xasida bi defe naa buñ ne xasida nag buñ xoolee jataay bi rek xalaat da xam ne kon jataayu xasida ngi nii jataay bu ab jataay bu ko sëriñ am satu jiitee sëriñ Youssou Diop toog ni ak isbu tarxee xam ne loolu mooy xasida nag loolu mooy ñii dund xasida te di ko dundal te di ko dundule di dund dundule xasida mooy di ko ànd ak murid yi nu di ko dund dund goo xam ne ñëpp dañ ci am lu ñu yëg-yëg ci suñu xol ak son bëgg-bëgg sëriñ Muntaxa xalaat nag gis génne xëccal nu njariñ dàqal nu lor tax mu taxawal bis boobu mu bëgg tëdd bisu xasida bis boobu nag dafa woo sëñ Yuusu Jóob mii ne ko dama lay liggéeyloo liggéey bi ci xasida la jëm waaye dama lay yabal nga dem ci sëñ Amsatu liggéey boobee sëñ Amsatu ne kilifa gi waaye na ko taxaw bisub xasida boo xam ne danañ ci dund xasida dundal ci xasida loo xam ne mosu fi am te moom ni mu xamee ne lépp lu mu songal sëñ bi dana daan loola lépp lu mu yóotul sëñ bi dana jot ca loola moo tax mu fabee ko fabiin woo xam ne ñëpp yëgandoo ko rek yëkkatee ndoo ko rek moo tax fabiin woowu dem te xam nañ ni itam bu ko santaane joxe ci ndigal jiital ci kilifa yi na mu ko bëggee ne lañ koy defee na mu ko bëggee nag mooy fu murid taalibe bi maa nekk ci àdduna nga def ko sa bisub xasida dundal xasida fa nga nekk waaye nag ci dëkk bi ak ñi mën a jege dëkk bi ak ñi mën a ñëw ci dëkk bi moom daa bëgg ñu dundale ko ci biir Touba loolu tax mu waxoon suñu yuusu ne ko ci wàccaay bu gisee suñu amsatu bañ waxtaan ba noppi nun nag naan jàpp suñ kam kàttan ca wàccaay ya mooy barab yi ni koy nase ñi daan ànd liggéey bi te li ci daan jiitu mooy muxaddamatul ma ci biir jumaa ji ndax sëñ bi da ko wax ne jumaa ji ak li ko wër nañ na fees dell ba ba ngay dem daaru minam bu kenn am foo toog kon loolu wàccaay la woo xam ne dañ koy waajale yéegi ko ni ko sëñ bi yéegee rek ñëpp jàppandoo ko rek yëkkateendoo ko mu mën a jóg loolu nag mooy fu taalib bi mën a nekk def ci xolam ne ci ñi war kenn wutu koo jiit ci ñiy dundal bis boobu ak nu ko waay mën a rek ñii mën a yor xasida durus ñii ay kuréel yi jàng ñu mën a def ay berde ay xéewal andi ko ñëpp kenn ku ne na yëg ne na yëg ci xol-xolam ne bis bii ci la defaroom nekk ci la mën a muccee ci mu ragal lépp bu kenn ku ne jógee noonu rek li ci sëñ bëgg dañ koy am te li ci sëñ bëgg boo ko amee noonu li nu bëgg danañ ko am kon nag sëñ bi neen na ñëpp jóg na ñëpp foofu na ñëpp génn njàng mi dafa waxoon ne bu ñu ko yemale fenn fépp nañu fa jàng rawatina dëkk bi bu dee dëkk bi itam bare bi jàngukaay yëpp bare bi dajowukaay yëpp nañ fa jànge tàmbale na ko ci mbaarum daar xudus mi di laahu alhamd waa waa wilaya ña nga fa di waaj war a taxaw liggéey foofu buñ jógee ci jumaa ji laa wax ba noppi àgg na daaru minam gii ña nga fay waajal ña nga fa sëñ yuusu ña nga fay def ab baas ay baas yu mag mbaar yaa nga fa noonu lañ koy waajale ba daaru tansil ba fu ay mbooloo mën a daje ci kaw nag ñi mën a ñëw jumaa ji ñëpp ñëw ba noppi ndax kër yi wër jumaa ji itam dañ leen di waajal muy kër sëñ Abdoulaat gii kër sëñ Mouhamad kër sëñ Fallou ba baar maa nga ci bunt kër ba te biir kër gaak lépp léegi lañ fa jógee dañuy noonu lañu koy defee kër sëñ Abdoulahi noonu lañu koy defee kër sëñ sëñ Saliou noonu lañu koy defee kër sëñ Mortala dañu koy defee kër sëñ Abdou Xaadir dañu koy defee kër sëñ Ndaam Atta kër yi wër jumaa ji kër yi sëñ Tuubaa dañ fay dugg ci biir waajal ko fa ña fay jàng dafa jàng ña leen di berndeel di leen berndeel fekk jumaa ji fees ba dell ba noppi ñu door dem daarul xudóos dem daarul minan fi ñu war a àgg ñu àgg kon nag loolu li ci am solo mooy fu taalibe bi mën a nekk jàpp ne bis bi yaa tax Sëñ Muntaxaa di ko woote jàpp ne yow la Sëñ Muntaxaa bëgg a dimbale tax muy woote bis bi te ndimbal la ñu fekk loxol borom kon kenn ku ne fam toll na ni waaje ki mën a jàng genn xasida ba kenn ma ki mën a jàng téeméeri xasida ki mën a jàng ñetti junni yi way ci bis beeg lu ne lu ci waaye man lu ne ko def ku mën a ñëw itam nga ñëw ba wuy si ba noppi ñu defee ko fii foofu xam ne mbooloo dañ fa daje ña xam ne foofu mën nañ mbooloo te mën nañ faa jàngee mën nañ leen faa berdeele nañ jàng loolu lépp sëñ Yuusu danañ ci egsi da te waajtaay yi mi ngi ñëw dañ koy nas ba nga xam ne fu fi mbooloo nekk danañ ko xam nañ leen di digale ñu jàngeen yi danañ ko xam jàngeen wo na muy tuddee lépp danañ ko digle teg ko ci yoon woo xam ne ñëpp a koy xam nañ ko war a bernde na war a demee dañ ko teg ci yoon wér woo xam ne ña war a toppatoo bernde yi ña ko war a togg buñ ko war a andi ñañ ko war a yóbbul lépp lu ñuy nas la di ci am solo daal mooy yëg-yëg bi rek yëg-yëg bi suñ mu tax am daal wàllu na ko nu itam nan fa seen am suñu yëg bopp kenn ku ne daal nga jàpp na si yëfa jàpp na ci mbir mii ngi ci la ci la sëñ bi ba a jaarale sax defaru ci la la sëñ bi bëgg a jaarale sax mucc nga nga noona yëkkatee yëkkatee noona boobaa bu ñu ko defee baat bi li lima waxoon rek li ci sëñ bi nas xalaat ko ci bëgg ko ci bu ko amee nun liñ bëgg lépp dañ ko yam te la lépp kon na ko bi bëgg nan fexe ba defe ko noonu rek te loolu nag yëg-yëg rek la yitte rek la yitte rek sëñ mu taxaa da koy wax dañ ne mbir lu mu rëy rëy buñ ko nasee teg ci yitte lu ci bëgg mën na ci am waaye nas ak yitte nag moo mënta ñàkk ci mbir lii rek moo laaj nas ak yitte nag kon nag maa ngi soññ sama bokki taalibe noon ñii nga xam ne noonu noo war a yor liggéey bi noo war a laxasaay yor liggéey bi nan laxasaay fas yéene taxaw liggéey bi ak kenn ku ne na nga jàpp ne nag yow yaa war a taxaw liggéey bi ci bopp man nag jàpp naa ne maa war doon dawal sëñ Amsatu maa war doon dawal sëñ Yuusu maa war doon surga bi maa war doon jëwriñ ji buñ ma ma gën a dóorub yar rek mu ne yaay seex yorom sëñ Muntaxa kay man xaw ma lu may def waru damay daw rek geesu daw dem rek di ñaan ànd ak murid yëpp nu dem nag nu topp ci seen ginnaaw nag moom daal li ma waxoon démb li ci sëñ bëgg na ko ci am li siñ bi bëgg nu am ko nii tam nan ko ci am na ci yàlla ko defal jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa ah, xanaa dog ngant rek ci kàddu yi ci sa kanami kilifa waaye lenn rek lay dërloo mooy baatum ndigal kon ñu ngi sant sëriñ bi nga xam ne moo nuy liggéeyloo te it defal nu taw feex boole ñoog ñoo xamante ne ànd ak ñoom ngóor du ko maye waaye ndimbalal yàlla rek moo mën a maye ñu boole la waar ne la jógal dem ànd ko ñu tedd ñii nga xam ne kenn ku ci ne fi la sëriñ bi teg ku ci xam dara di nga xam ne am nga loo xamante ne sa ngóor a mayu la ko kon takkaat sa laxasaay rek te uh, xam ne liggéeyal sëñ Tuubaa rek la dese sëriñ bi defal na la loo xam ne jomb na la ndax bëgg liggéeyal sëriñ bi baax na waaye sëriñ bi liggéey la moo ko gën euh, ñuy sant bu baax ginnaaw bu ñu ziyaaree te ñaanal sunu sang bu tedd bi Cheikh Mouhamadul Mountakha ñaan mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal euh, euh, rakki boppam yu tedd yii ak tamit bokki boppam yu tedd yii nga xamante ne dañoo doon ay bokk ba noppi waaye laxasaayu ba nga xam ne dong bu góor góorluwul ah dinañ jër cëru doon sa kilifa ba noppi dàq laa tarbiyaw loolu nag moo tax ku mel noonu boo ànd ak moom sago dootu la yomb eh, Cheikh Mamadou Mountakha moom eh, li mu nu bëggal te bëggal ko mbokki jullit yëpp bëggal ko mbokki taalibe yëpp nan xam ne li gën a wóor mooy sunu pas-pas ak sunu yéene ak sunu ñaan nañ ko tàbbal ci biir la muy yéene ak la muy fas ak la muy ñaan ndax defe naa sëñ Cheikh eh, moom sëñ Abdou Latif kàddu yi mu wax matale na damay jaaraat rek ci ay baat yoo xam ne sëriñ bi dafa ma ko wax ma dégg ko bëgg nu gën ci jariñu ndax dafa ne weeru muharram wi day muy weer wi nga xam ne mooy weeru tamxarit mu jël bésub àllarba di euh, war a doon benn fan wala ñaari fan waaye àllarba ji mu jël kon day tombe ak mercredi àllarba kon 11 août 2021 kon fukki fan ak benn yooyu muy tombel dañu xam ne mën naa doon benn pan ci muharam waaye mën naa doon ñaari fan dafa wax ne weeru muharam day day weer woo xamante ne weer wu màgg la te bari njëriñ te sëñ Tuubaa it suñu borom jagleel ko si loo xam ne moom rek moo ko am ku ne xam na ne liggéeyam bi mu liggéeyal suñu borom ak at yi mu def njaareem ba mu tolloo ci waaj di ñëw ku xam dara ci sunu borom xam nga ne képp ku sunu borom am ci tànneef ñu baax ni ñëpp ñëw nañu xam ne ki gën ci ñu mës a liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi liggéey na liggéey boo xam ne kenn mësu koo def ñu ànd mu ñu ànd ak moom jóge gi muy jóge njaareem ñëw fii ci Touba jund laayil xaaliboon kenn desul ñu baax ñëpp kenn desul sëriñ bi nag bëgg nu nu bokk ci ñoom moo tax tey jii mu bëgg ñu jëriñu ci jóg googu sëriñ bi jóg di ñëw ci fii nga xamante ne mooy Touba diggante njaareem ak Touba ñu war koo gàttandu war koo gunge. gunge googu nag mu gis ne lenn rekk ci yàlla mooy xaside yi ndax sëriñ bi ak màggam lenn rek la mën a ànd ak moom yeeyoo ànd ak moom mooy xaside yi ndax nee na xaside yi mooy jëmbi sëriñ bi loolu nag dafa laaj wàccaay laaj ak teewlu laaj ak sell mun nañu fu kuréelu xasida ne ak jàngkat boo xam ne la muy jàng wér na sell na boole leen ko ci kon xatalu ko da koo yaatal mu ne ma nag na jóg balaa ngaa def dara demal ba ci sëñ xamsatu moom nag lépp lu ñuy def ci xasida moom lañ koy dimbalee loolu moom ba mu ma joxee ndigal loolu ci laa xam sama bopp bu baax xam naa ne kon la ma ci eh, ñor mooy sëriñ bi faw ñu xam ne dañoo war a laxasaayu liggéeyal ko waaye tamit dangay am dalil moom nag ba mu ma booleeg sëñ Moustapha moom sëñ Mahamadan mii itam eh, boo léegi gëlëmatuma xam naa fi may teg sama tànk di sant bu baax tamit sëñ Alioune Diop mii nga xamante ne ëllu xasida liggéey bi ñu ciy def te di ko def ci kilifteefu sëñ si mii murit yëpp xam nañ ne liggéey bu mëntoon a ñàkk ci yoon bi la pàgguteefu fu Tuubaa la ñeneen ñëpp nag ñi nga xam ne sax xëñ na fa ñu nekk ñu ngi yëngu ci xasida yi nañu xam ne ci lañu loolu mooy ndigal li sëriñ bi nañu nag biir jumaa ji ak li ko wër bu mu ci yem nee nañ nee na mbooleem pénc yi nekk ci Touba ña nekk ci pénc yooyee nañu yam foofe te dundal ko foofe ndax loolu mooy tax ñuy bàyyikoo ko ci euh, yeneen gox yi ci biir réew mi bu ñu dikkee kenn ku ci ne war ngaa xam fan ngay dal loolu it ak nos la goo xam ne noo ngi ci liggéey boobu ndax tey mboolem ñu yëngu ci xasida am na nu ñu nosoo ca Ndakaaru am na nu ñu nosoo ca Kees am na nu ñu nosoo ca Saalum am na nu ñu nosoo fu ne loolu fi ñu toll nii ci war a liggéey ñu ngi ciy liggéey ñu ngi koy ànd ak ñoom kon nañ xam ne liggéey bi lépp dina tege ci yoon incha allah xaside yi ñuy jàng sëriñ bi dafa bëgg kuréel yi jàng ak jàngkat yi nga xamante ne dañuy rajas ku ci ne la ngay jàng ak sa morom la muy jàng na wuute loolu it mën naa ne ci nos la ndax tàmbali nañ cee liggéey te yaakaar naa ne lépp bu ñu ko tefee bu ñu ko tegee ci yoonu euh, ndigal rek lépp dina sotti ñuy sant nag bu baax a baax a baax a baax li nga xam ne moom sëriñ bi wax na ko ndax euh, liggéey bu toll noonu ak yaatu gi mu yaatu wax nañoo xam ne ah barabi jàng xasida yi dina yaatu waaye wàññi it war naa yaatu ndax Touba gépp war nañ ko defee wàññ euh, ndax ginnaaw ni sëñ Cheikh waxee de li muy wane mooy ñun nañu laxasaayu rek wane na jublu nañu wutali sëriñ bi ndax sëriñ bi léppam daf koo jox rek yonent bi sallallahu alayhi ñun suñu lépp ñu war koo jox sëriñ bi loolu mooy mooy liñ ko ameel bor te lott nañ ci sax waaye nañ ci jeex takk rek ngir wane ne suñu ngor mat na suñu jom mën na mat na suñu pasé mën na yu bajjilu kulli kullakal yow ma mahadin wa insha rabbi laa urad dahra daawana yi sañatuñoo noppalu sañatuñoo tay ginnaaw loolu itam waañ yooyu nga xam ne war naa am ci Tuubaa gépp ñoo ngi koy ànd ak seen cheikh mu ngi ci jàppale ñoo ngi koy ànd ak suñu bokki taalibe yëpp ngir xool fépp foo xamante ne wàññ mën na fa am bu ñu la limul it yow limal sa bopp te dikk te xam ne fépp foo xamante ne daara Hizbut Tarqiyyah am na fa wala fépp foo xamante ne sëñ Hamsatu mii ndawam a nga fa foo ci dem di nga ko benn liggéey la benn nos bi la loolu kon ñoo ngi koy ñoo koy leeral ñëpp di wax itam ne euh, moom sëriñ bi day ba mu joxee ndigal li rek jël na ab lim ci ay nag yu tolloog arafi Touba nañu fi saasi moom laa koy tàmbalee muy ñaar fukk ak juróom-ñett boole ci ñaar fukki bërigoy ceeb ak juróom-ñett euh, bëgg lim bëgg leneen li ci des lépp mu def ko ma yalwaan ko ne ko Mbàkke man de dama damay yalwaan rek ginnaaw da ñu ko digal te te bëgg nañ cee tàbbi dama bëggoon ndugg la ca waraat ak lu ñu ca mën a dolliwaat nga nga nga nga nga taw féexal na ko mu ci la ci la nangu loolu may na ko waaye bañ ca teewee ci kanamam it mànd ak sama sang bii di sëñ Xamsatu fa saasa sëriñ bi nee na bis la boo xam ne nag ay téeméeri téeméeri nag sax du tax mu doy ci loolu kon mooy wane ne togg yi moom nañ ko jàppee li àddadin laale li xam moom na wóor ne lu mat bis bi moom mënuñu koo am waaye nañ ci jeex takk sëñ Xamsatu nii mii nag wane na yoon nun kon lañ doon joxe danañ ko dugalaat ci biir lii muy lenn da teggin sax ñuy limaat kon dongo fu mu ne dina indiwaat dolli ci lii nun li nu amit dina indiwaat dolli ko ci lii benn joxe rek la sëñ Muntaxa moom ginnaaw moo ne ma sëñ Xamsatu mii lu waaye di def ci xasida moom la koy defal kon loolu rek jooy door naa doy naa tudd kenn du fi tudd keneen ñun nañ dugg ci seen biir ñoom ñu defal ñu add xaltu nafsi yi wa jamii ahli fi jey bi afdalil wara zul fadli kon lii daal laa ci doon dolli di wax ne ñu ngi sant Cheikh Mamadou Bachir mi nga xam ne moo yor kàddu sëriñ bi ndax euh, bis bu mel nii ku ne xam ne ne mbooloo dina bari dina dinay demee noo xamante ne ku ko saytuwul boo moytul tumuranke mën naa am moo tax kon moom ba mu xamee ne lii nga xamante ne Cheikh sa mi ngi koy def di ko defal bokk yëpp mi ngi koy féete moom it am na wet goo xam ne feelu na ko ci fa saasa la jël ay matuwaay yoo xam ne ñu yor wàllu wér-gu-yaram muy préfet muy yor wàllu kaaraange amu ci kenn koo xam ne woowu la jox la ndigal ngir nga taxaw ci kon loolu kon war nañ ko cee sant bu wér ndax xam na lii liggéeyam te mosu cee teggi tàngam di ko ñaanal bu baax mu yàgg fi loolu te ànd ak euh, leneen li ci des rek ma ko ciy dolli defe naa du bari dafay jëm rek ñu xam ne nun teewlu gi ak yar bi ak teggit yi ak kuy ñëw nga déglu ki nga xam ne mooy sa kilifa ci gox ba nga bàyyi ko ngir ngir ngeen xam fan ngeen di dal ndax masalan boo bàyyi koo cees damay joxe misaal rek ñu jóge foofu ñu ne leen barab sàngam lañu ñu ñi nga xam ne ñooy jàng xasida bàyyi koo cees euh, moo xam muy kuréel wala moo xam njàngum durus lay rafetal liggéey bi mooy nga xam loolu te jubali foofu ñi nga xam ne mooy kuréelu xasida yi nekk Touba rek seenu lim yaatu na taarkaal la loolu tamit bu ñu xamee ne barab sangam lañ leen fàggul loolu yeneen communication ak yeneen euh, waxtaan dina am yoo xam ne mooy topp ci bii te ñi koy war a def mooy ñu yor bànqaasi liggéey yi nga xam ne yii ci wàllu togg la jëm yii ci wàllu njàng mi la jëm yii mi ngi jëm tamit ci wàllu sonorisation ndax nit kuy ñëw te amaale basang wala nga amaale ay rajo wala nga amaale ay ay ay tante ak i baas boo ko indee day yombal liggéey bi ndax nun sunu sunub liggéey la ay bool itam ku ci indi lu doy day tax bu ñu la bu ñu la yàkkalee da ngay mën a seddale te loolu dina tax dara du sànq ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi it tey tey togg di indi war nañu ku ci ne war naa xam la muy togg fan la koy yóbbu ngir bu ñu ko yóbboo ña koy jël ñu xam ñan lañu su ko defee ñu mën cee ñu mën a fexe ba la tax mu ñu def ko ñu mën caa jëriñu te dara du yàqu lii daal laa ne woon rek naa ko ci euh, dolli di yeesalaat rek sama jaayante ak mboolem koo xamante ne ñoo ngi ànd ci liggéey bi moo xuma rek isbu tarxiya waaye mboolem dongo yi ñun ñëpp noo ngi doonaat benn di gën a laxasaayuwaat xam ne muhajirin ak lansaar rek moo am waaw sunu sang yaa ngi nii ñooy muhajirin yi ñun ñooy lansaar yi nga xam ne tamit nag noo ànd ak ñoom liggéey bi yal na ànd googu sax zahiran wa baatinan ba nu làq mu ngërëmal sëñ Tuubaa tey ak ëllëg jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, ñu ngi nuyu bokk yëpp ci turu sëriñ Hamza moom sëriñ Soñu ndax euh, di wax ne moom bi mu jotee ndigal ci sëriñ bi loolu day lu rëy ci moom ndax ni mu ko waxee sëriñ bi rek saa su nekk dañuy dàkk mbégam ak bëgg-bëggam waaye nag bu wootee santaane ab liggéey euh, kon loolu tawfeex ju rëy rëy la te it muy liggéey boo xam ne sëriñ bi ni ñu ko santaanee ak ñu ko fonke dafa kawe lool ba eh, du ci dikkaat sa suñu su wax na ko waaye ñaari kàddu yi mu wax rek nga xam ne day tegtale ak fonkeel wax na ne fu kuréelu xasida xaj rek eh, na na na fa ne wax ab lim bum ci barkeeloo ne nag ab tàmbali la waaye bis bi ye eh, maanaam yeyoo na rey ci ay téeméer téeméer nag kon sëriñ Xamsatu li nga xamee ni da ko cee uh, barkeeloo ànd ko waa uh, waa ahlu xasida ñëpp xam ne ab soññ la képp ku man ak foo mën a nekk nga xam ne liggéey bi liggéey bi sëriñ bi la teyit lu yaatu yaatu la loolu du ma ci xuus sëriñ Aliou Diop dana ci dikkaat ba mu gën a leer bu baax a baax a baax waaye daal nañu xam ne lii ndigalul sëriñ Tuubaa loo xam ne nii mën nañ cee jariñu àdduna ak alaaxira ndax sëriñ bi yitte ju kawe kawe la ci moom kon jàpp naa ne lu ci waay fas te jëf ko ci da nga ci am loo xam ne nii amee ko ci leneen du yomb jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim barke baram Tuubaa barkeb soxna Aysatu Gaawaan Mbàkke bintu Seexul Xadiim barkeb mbootum xasida yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki julit yi mbokki talibé murid ñi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziara te di leen ndokkel di jiital ci nuyo bi ak ziar bi cheikh al Muntaqa tey ñaan sun borom mu gën ko fee yagal te gën ko wéral te mu mel ne kenn ci ñun bu mu doylo baat bobu rek yem ca murit bu ne war nga wut dog bo xam ci digg ak sa borom rek la nga ko bis bu ne nga wéet ak sa borom def ko def ko muy tawasul sa dig ak mom ngir ñaan serigne muntaha mu yag fi te wer te bañ yam ci yalla na fi yag te wer kese lolu maa ngi koy soñi sama bop di soñi bok bokk taalibe ndax kat ak yagam fi amal nañu njariñ kon yalla na fi gëna yag te gëna wer diko ko nuyu bu baax te di ziaré te di ko te diko kañ mom Cheikh Ahmadoul Muntaxa lii Cheikh Mbacke wax ci mom noni rek la démé Serigne muntaha mom waxuma nga gis mom, waxuma nga deg ay kaddom waye sa xel bu demee ci mom do xalaat luddul ab murid murid bu melni serigne touba bëgg murit melni moy Serigne muntaha yi ci dess yëpp murit gi da ko mur yow kay yaay xol ba gisat waye sam xel na ciap serigne muntaha li ngay ñëk a moy mooy salih bu melni serigne touba bëgg ku ni mel soko ko xalaat nag doomi serigne Bassirou soko ko xalaat moy mooy xalifa sëñ Tuubaa soo xalaat la mom Serigne muntaha te yàlla lim bind murit la ci gën a bëgg moom la ci gën a fonk te Sëñ Muntaxa doon na ko te yemul ci doon ko waaye ak laabiram yàgg na ci bëgg ñëpp dooni murit moom lay waxee moom lay jëfee kon yàlla di fi gën a yàgg koy siyaare bu baax di siyaare mbooleem rakkam yi te di ko teg ci loxool sëriñ Xamsatu Mbàkke mi nga xam ne mooy jëwriñu ahlu xasaayid di rakkam di soppeem di ko xam ne ku ne xam na ne sëriñ bi amul ci moom sago te li ko waral du bokk gi murit gi mu doon moom sëñ Muntaxa te sëñ am sa di murit ñu daje ci loolu yi loolay ma waral fonk gi ma waral sopp gi kon sëñ am sa ñu ngi di sëriñ di siyaar sëriñ Moustapha Mouhamadan ak sëriñ Cheikh Mbacke Baye Fall moom day sëñ am sa ne na ko yaay seex Ibrahim sëriñ Muntaxa waaye loolu yàgg na de moom ku ko xam xam nga ne ci Baye Fall ngoo ko xam te nag Baye Fall gi li tax mu gën a dëgër mooy da koo donn ndax baayam day sunu baay nampatal nu mel na man na wax ne lu nu mel ci sëriñ bi rek sëriñ Abdou Latif moo nu toqi di koo xam ne sëriñ Abdou Xaadir ko yéem ci pastéefam daan wax ne man de Abdou Latif damaa xamul fu ma koy teg ndax boo ko dugalee ci sëñ bu sa mu jeex ca tàkk boo ko dugalee ci Cheikh Rafal mu jeex ca tàkk kooke nag la doon kon Mbàkke jërëjëf e, di ziar dong yëpp waaye ziar dong yi dañ koy teg ci loxol sëriñ Yuusu Jóob wax naa ko ne ko mbooleem jëwriñ yi ci yoonu murit jëwriñ ju ci ne say marami murit te la ba nga doy leen ñu la doxal ñu topp ci sa ginnaaw mat nañ ko de ndax murit la tànn lu ñu tànn tànn na waaye sëriñ Yuusu moom daa am feex ndax daa ci tool bi di liggéeyal sëriñ bi di liggéeyal sëriñ bi ba borom Tuubaa ne ko yuusu mu ne ko mbàkke mu ne ko doxal yuusoo ngoog la sëriñ bi wax loolu nag taxawaalu may la ko taxawaalu may ko li li li dal sëñ Muntaxa ci fii mu toog moo la dal fi nga toog mosoo koo xalaat mosoo ko yittewoo musoo ko dox waaye sëriñ bi daa bokk ci ay turam moom buy daal muy dal moom sëñ Tuubaa kon yuusu na sam xel dal ndax gannaaw donc yi ñu tànn képp la sëriñ bi jàppale bañ mën a dem asteeku sëriñ bi tànnal boppam kon waa Hizbut Tarqiyyah lu dul sant te feddaliwaat seen laxasaay te topp ci sa ginnaaw waru leen te ci loolu lañ nekk xam naa jataay bi daa xaw a gudd gàtt ba liñ bëgg wax lépp duñ ko mën a wax waaye foofu doy naa yem ñu ñëw ci lii nga xam ne moo nu tax a daje la sëriñ bi waxoon ca njaareem ba mu wootee ba ñëpp dama dafa ne li tax ma woo leen day yitte te mooy bis bii nga xam ne ci laa doon liggéey rasulullah sallallahu alayhi wa saa bu mosaan dikk suñu borom day dolli nattu yi ful ko natt yooyee nag la saa borom xamal ne ma jeex na pay gi itam na natt yi doon demee ni lay demee mooy at mu jot day fuya day ful pay gi ma bëgg nag ñu def ko yitte wax ca lam ca wax yëpp foofee sëriñ bi tegoon wooteem boobee rek la sëñ Muntaxa teg woote bi na murit yëpp xam ne wooteem sëñ Muntaxa bi yitte la lu ab murit jàppoon bu bis bi jotee na nga ko ne tegg ci suuf te wuy si sëñ Muntaxa Cheikh Abdou Khadre day wax ne lu ay nekk lu mu baax baax bañ na julli jot na loolu baaxatul julli rek a baax waaye na murit yëpp xam ne lu ab murit nekk loola lu mu baax baax lu mu yitte yitte ba sëñ Muntaxa ne soxla na la la nga nekk baaxatul wuy si sëñ Muntaxa rek a war kon na ñëpp wuy si sëriñ am sa nee na mi ngi woo mbooleem kuréeli kuréeli xasida yi képp koo xam ne man nga ñaar ak ñett di daje ci barab di jàng xasida sëriñ Hamza nee na woote bi sa bu wootee rawatina nag ñiy taxawal bi si xasida yi ñooñu ñoom force la ci ñoom waxuma jëwriñ ji waxuma ña topp ci ñoom ku bokk ca kuréel googe rek dañoo war a àndandoo nañ doon def seen kuréel àndandoo ñëw wuy si sëriñ Muntaxa te buñ ñëw loxo yi kese kuréel buy ñëw na nga daan def sa bisub xasida xamal ne moo la moo la moo la war fii mo la war fi kuy ñew say basang bu mu dess say bol bu mu dess say nak bu mu dess say xar bu mu dess say bernde bu mu dess na lepp dik na lepp dik bis la bo xamne ben bis la wara doon serigne muntaha waxon nako ci at yii ci ginaaw muy daw waxon na ne rew mu ne man na jaxle bam dess rew mu am serigne touba lol nak nun ahlu khasida ñoko wara wone tay jaxle gi lembe aduna lañ bëgg serigne mi nako sepet sandi ko fu ko fu ko bët dootu tege ci lolou seigne touba man nako waye seigne sëñ day wax ne seigne touba day moom sàgganut fàggu na lépp waaye ñi melni man dañuy japp ne ko na ngay tok seigne mu indil la sa wàll seigne bi amul jotug wër di seddale seigne bi mu fàggoo lepp da ko tek ci barap kenn ku ne tek sa positif moy tax nga jot sa wàll té nak bisub seddale baa ngi nii ku bëgg jot sa wàll waajal ci dik waajal ci dik waajal ci dik bis la bo xam ku ko wute wuute bu ko kenn wuute ku dem ba am ngant ba am ngant ba am ngant na ko sa jëm wuute waaye sa xol ak sa pasteef bu ko ak sa alal dag ñii ci biir réew mi ñëw da leen war ña nekk bitim réew dik, dikk da leen a war ku ca mënta dikk na nga dik na ngay dikke mooy ñu mën a daje ci bis boobu nañ daje fa ñu ne tollale ko ak noonu ñu ta daje kenn ku ci ne sañ gaa wéet tubaab bi lu ñu mën mën duñ tere ko wéet man nga wéet wéetal sëñ touba ne ci xasida yi te xam julit yi bis bu nañu bok dajé fu ñuy dajé moy ci néegi yalla yi bu tisbar jotee ñu dugg ci yalla jakk ji julit yëpp dajé lañ ci benn barab ñëm ñëpp ñinga bayti la aram kon buñ dajé ci xasida yi mourid yëpp dajé nañu bis bobu la sëriñ bi woté sëriñ am sa bëgg bu nekk bis bo xam ne sëriñ Muntaxa bu gënné ba xol ñu waxu mu mu génn ci sahir di wër waye sëriñ bi génn xol ñu dara ci mom lu ko yomb la ndax mom sëriñ Muntaxa mi tok nak ak sëriñ guddi di waxtaan bam yag yàgg sëñ na tek bam yag mu delu mu ne ko Muntaxa sama xel da nek sama murid dama nekkal xel ko ma demon di len set waye ku fa fanante fajna sa ajo te ñom ñaar nga tok te ko ke moy ki kon na murid yep wàcc dik te kenn ku ne xamna ne sëriñ da na la xol rikk way ku mu xol ci ñun na fek nga ne ci lam bëggon nga ne ci ci mel na nga mel ndax kat yalla day ko sel lu sel rek lay nongu day ko tey lu tey rek lay nangu kon nan wajj te dik te bu dikke defal defal señ bi lim bëgg ko ko defal señ ci noppé suñ borom defal nu leen bëggon ko ko defal lolu mom lu automatique lay doon kon wote ba ngok ñi ngi wo bo murid yépp ñu né waa xasida yi ña ngay woote loolu day sun taw feex rek ñu bëgguñu koo jiñ waye murid yépp a bokk xasida yi wessu nako sax julit yépp ko bokk ndax señ bi njariñal aduna ak alakhirah la dajale def ko ci xasida yi def ci njariñal jullit yëpp jullit yëpp mën nañ cee jariñu kon liggéey baa ngoog àllarba lay doon sëñ Yuusu wax na ko léegi àllarba daa bokk ci bisi sëñ Tuubaa yi daa bokk ci bisi sëñ moo tax bi ma déggee àllarba ji damaa yéemaat sëñ Muntaxa la xewoon àllarba la xewoon li xewaat àllarba la xewaat àllarba àllarba bi sëñ Tuubaa la kon àllarbaa ngi noonu di ñëw yàlla nañ ci yàlla yeggal ak jàmm te sëriñ bi defal taw feex ba lim bëgg ñu def ko mu def ci ñun manu man ko def ñu def ko nim ko bëgge ba lim bëgg def ci ñun mu man ko ci def wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahi arrahmani irrahim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa ummatihi ajmain assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh serigne bi ñu ngi lay nuyu ci turu sëriñ Afia Bousso mi nga xamni mo jité jiite daayira muqaddimatul xidma nuyoo bi nag ñu di ci jiital Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan sun boroom mi nga xam ne dara tawu ko mu defal nu kiimaan ci ak dundam gu raw ga mu defoon ci dunduk yont yàlla nu sun borom mën na ko sañ na ko yàlla na ko def te nu ànd kook moom yàgg nekk ci ginnaaw mu yàgg noo digal nu yàgg koo jëfe nuyoo boobu nag ak siyaara yi ñu ngi koy teg ci loxol sunu kilifa gu tedd gii toog di sëriñ Hamzatu moom sëriñ Sohaybu moom it ñi di ko ñaanal liggéey bii nga xam ne moom la maamam teg ci loxoom ci xasidaam yu tedd yi sunu borom gën koo jàppale gën koo dëgëral ba lépp lu ci yéeneem mu man koo def mbo mbooleem ñi mu ko àndal waaye ak mbooleem murit yépp di nuyu itam sëriñ Yuusufa Jóob mii di teg ci moom loxo loxo bi loxoom nuyoo bokki taalibe yépp ni ko ñëpp defee ginnaaw bu loolu jàllee nag dañuy sóobu rek ci liggéey bi daayira muxaddamatul xidma sëriñ bi boole nanu ak yéen sëriñ Yuusu ab liggéey ba tey ñu yàgg koo ànd te lépp yàgg rafet waaye sëriñ bi it yàgg naa santaane ci jumaa ji ay liggéey ñu yàgg koo ànd lépp rafet sëriñ Xamsatu mi itam yàgg na faa ñëw di fa dundal ay guddi xasida ci jumaa ji lépp yàgg rafet kon xëy na dañoo bëgg lu gën a rafet rek waaye rafet moom am na ba noppi ñu bëgg nag kaddu yi ñuy yëkkati ñu jëmee ko ci bokki taalibe yi nga xam ne ñooy jëm si ci jumaa ji nañu bàyyi xel ñett benn bi mooy ndigalul sëriñ Touba moo leen tax a jóg bi ci topp mooy ci bërëbub sëriñ Touba lañ koy defe si dolli ci di néegub yàlla beneen ba ca topp itam mooy aajo ju faju lañ ciy wët si ñett yooyu yëpp nag dara àndu ceeg po dara àndu ceeg caaxaan. nañ bàyyi xel barab bi nga xamni fi lañ jëm ci bu baax a baax a baax baax baax ci wagar ko ni ko sëñ Saliou daan waxe ci lepp lu basan di xew ci jumaa ji dafa daan wax ne ni njëkk a xel ciat gi ciat gi ndax l'islam dafa fonko ak set sëriñ itam fonko ak ba barabam bu mu am ñepp xam nañ xam nañ nem daan mel ci ak ciat julli juroom sax julli jum ci daan mas julli daf koy wutal mbum mu bes moo xam ne dafa joge ci ci pot set munta wessu lolo leneen la topi toppitam moy ñu ak warma ji warmay barab bi ci bopam bayyi xel ne ñu ci mbedd ñu ci sunuy kër ñu ci ay ëtt waye ñi ngi ci kanamu Serigne Touba képp koo xam ne jàpp nga ne bu Serigne Touba toogal ne ngay jàkkaarloog moom ci saayir war ma jang ko war a jox bo duggé ci barab bi war ma jox nga war a jox barab bi te xamné ne gisulit ko mi ngi lay gis kon nañ ak lolu bu baax a baax a baax kuy ñew nak sëriñ bi joxé né ndigal ne kuy ñew ci jumaa na tak masque gis ngeen jotaay bi ñu tok kilifa gi fi nek woné naw yoon kon nak digal loolu it ñu ngi koy fatali bu ñu ci biir jumaa ji itam ñi nek ci biir di wane barab yi ñi nga ne fi lañ war a kuñ ne jekkil fii jekkil foofa te xam ne foofa mooy sa barab képp koo xam ne itam defar nga ay xéewal di ko indi ni ñu ko daan defee ci njàngum alxuraan bi rek noonu lañ koy defee waajal nañu ay barab ak ñu fay nekk ñoo xam ne lu fa waay indi teg ko ci seen loxo danañu ko sàmm ba mu àgg fa mu war a àgg te dara du ci yàqu waaye nag bëgguñu kenn di indil boppam di tasaareel boppam di séddale ndax barab ba dafa am lu mu laaj ci ak fagaru noonu ñëpp xam nañ ne barab ba ay karo la te li ëpp ci lii bokki ndaw ku ndaay di jëfandikoo day niin te bu tegoo ci karo yi mën naa indi tarxees te tarxees doon wut si leneen leneen dabe ko fa ñaanuñ ko suñ borom yàlla na ci yàlla musal bépp jàmm moo tax ñu bëggoon looy andi muy lu ñuy naan mbaa lu ñuy mos mbaa xeeti foyteef yu mu mën a doon na ko yóbbu ca fa ñuy tuddee waañ wa am na barab bu ñuy tuddee waañ boo xam ne ña fa nekk dara du seen yitte lu may dajale loolu ak seet nañ ko war a tasaaree ci mbooloo mi ca fañ ko war a jëfandikoo ñu bàyyi xelit ne bu waxtu jëfandikoo jote it ñëpp dañuy sàkk ñu génn ci yokk jumaa ji ak ëtt bi jëfandikoo fi waaye biir jumaa ji sëriñ bi dafa sàkk woon ñu moytandiku jëfandiku fa loola it mi ngi wéy ba léegi ñuy ñaan itam sëriñ sëñ bii jóob sëñ Aliou Diop mii wax na ko léegi muy kaddu gu bàyyi ko woon Cheikh Abdoul Khadir Mbacke waaye dafa mel ni sëñ Abdoul Khadir daf ko jot li waaye sëñ Tuubaa ko waxoon mooy lépp lu waaye di def ak lu mu baax baax ba julli jot loola dañuy aj mbaax ga ba julli jàll kon nag lépp luñ ñu jàpp itam ba dégg allahu akbar juy nodd ak ku mën a doon na ñëpp maase dal ku wara waji wat mu wat ñi watu defar seeni sàppe bañ julli ba selmal ñu wat ci liggéey bi nañ ko def ci tisbar nañ ko def ci takusan bu ñu sëlmalee takkusaan te ni sëriñ bi waxé légui kilifa gi dana ñëw ci biir juma ji muy sëriñ mi ñuy ñaan nak ñuy ñaan bu boba kenn ku nek na xamne mooy fa mu toogoon doon liggéeyee fa lañ ko war a wàccee na jekk na toog foofa te woyofalal sëriñ bi bu fekkente ne ci biir foofu la ko fekkoon mu yomb ci moom su ko fekkoon ci beneen barab mu war a ñëwit ñëw ga mën a yomb ci moom ndax diggante tisbaar ak takkusaan dafa gàtt lool te diggante boobu bu fekkente ne dañ ko fee war a tëj ci ay bayit sëriñ bi war fee ñaanal mbooloo mi ñu yewi ko te nodd du jotaat loolu nag ñun taalibe yi ñoo war a may sëriñ bi fursa bu mu ko mën a defee loolu daal bëggoon nañ ko jot li bu baax a baax waaye nag maa ngi gën a baamuwaat cet gi nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax kenn ku nekk mbuusug ndox sax ku ko naan boo noppee na ko def sa poos te xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne muxuurul xuuri fil janna di masajidi wa imaratuha kon nag te yaakaar naa ne ñooñu nag ku ne soxla na ca koo xam ne nag lañ leen di jote bokk na ca setal jàkka ak dundal jàkka kon nun ñëpp war nañoo fexe ba bañ faa andi luy taqal rawatina nag ci barabu Cheikhul Khadim bii nga xam ne fi lañ koy defee. ci biir loolu nag ñuy fàttali bokk yi nga xam ne dañuy ñëw ci liggéey bi te ay soxna ni na nga xam ne noonu la sëriñ bi bañee lool ak jaxasoo ci góor ñi ak jigéen ñi. ni ñu koy defee ci njàngum alxuraan bi am na barab yu ñuy fàggul jigéen ñi ku ñëw tey jigéen na dem ca barab boobee fa lañuy jànge waaye góor ñi dem ci barab yi nga xam ne fa la góor ñi di jànge ndax jaxasoo bi dafa doon lu sëriñ bi bañoon lool te bañ ko lool ci barab bii ba tey kon nag képp kuy ñëw itam na bàyyi xel loolu sëriñ bi mbokk yi dañoo waxoon léegi ne euh, dugg dañoo waxoon léegi dugg ci wenn bayit ñun nag am na bayit woo xam ne nii sax moom la ñu sëriñ bi tànnaloon mooy wal tudxilil musliha fi yi wa fi daari wa sabitanhu bil haadil wa fi waaye tey nag ñu ngi lay waxaat weneen bayit woo xam ne sëriñ bi daf ko waxoon ne ubaayiul yawma الرسول المصطفى بخدمة وأسأل الله الوفاء waaye ñun nag tey jii ñu ngi lay seeral ni maa ngi koy wax ci turu daaira muqaddamatul xidma gépp ak sëriñ Afiya ak mbooloo mi fi teew yëpp ne ubaayiul yawma xadiimal Mustafa bi xidmatin wa asalullahu lofa wa asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ok jërëjëf sëriñ Abdou Lahat Bousso ci turu daaira muqaddamatul xidma kon ñoo dégg kilifa yi nga xam ñoo fi yëkkati kàddu ci teewaayu Serigne Hamsatou Mbacké moom Serigne Souhaïbou Mbacké ni ñu ko waxee nag di ko fàttali muy bisub xasida boo xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des murit moo ko digle woote ko ci dëkk bu tedd bii di Touba ñu war koo tàmbali ci jumaa ji ak li ko wër ba mu daj mboolem pénc yëpp loolu nag di doon benn fan wala ñaari fan ci weeru muharam wi ñu jub atum junneeg ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett war a dëppoog incha allah fukki fan ak benn ci weeru wut atum 2021 ñu xam ne kon li ci sëriñ bi wax mooy lépp lu ñu bëgg di ko sàkku di ko ci wut bu ñu ko ci amee bu ñu ko ci fasee dinañ ko ci am moom nag wax na ni lépp loo xamante ni moo ñu jaaxal ba ci yi nga xamante ni moo gën a teew ci suñu kanam muy mbas mii nga xam ne jaaxal na réew mi jaaxal réew yi àddina yëpp bu ñu ko ci fasee sëriñ bi dana ko yóbbu te dootul dellu si nawet bii nga xam ni itam moom la jublu te yaakaar yëpp itam jublu ci nee na bu ñu ko ci fasee suñu borom danañu ko defal mu yaatu tooy te ànd ak xéewal ak jàmm ci ñëpp te loolu mooy li gën a néew ci li nga xam ni xam nañ ne mën na ko ci kon nag li ci am solo mooy niñ ko waxee te kilifa yëpp sàkk ko mooy ñu demee ci yitte ak paspas pas ak façon góorgóorlu ci di ñaan suñu boroom ci barkeb sëriñ Touba mu yóbbu ñu ci ñu àgg ci ak jàmm defee ko ni ko sëriñ bi diglee sàkku ci ngërëmam te am ko ci wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu karimin kaana sakara wa taji minu fi daarayni abkara katabtu sukran lahu ma qad rajawtu bihi كوني سعيدا وسكارا وذكارا وجهت وجهي في سهر النبي سندي للأكرم رافع الوهاب سكارا رجوت منه تعالى شكر عملي ورفع لي عني النعم غفارا رجوت أن يمحو الذلات جملتها أني وتذكيره لدار كفارا إني أخاطبه في البر مغتربا ولم يزل جل قهارا وجبارا